dil ci salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel tey ci bis bi tey nag dañu am suñu invité de mark ab Guité Seck Abdou Guité maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di la di la di la dalal suñu lëkkoo Dakar Actu. jërëjëf maa ngi kontaan bu baax a baax ci ñëw seet si leen tey euh, surtout ci bés bi ma leen seet si muy bés bi nga xam ni bés bu symbolique la pour ñun. ñoo ngi ci jamono bu symbolique pour ñun. Hmm. donc am lu mbégte bu baax a baax a baax. tey nag dañu nar a waxtaan ak Abdou Guité Seck tey dañu gis ne sorti album la ñu wax muy njukkal trois ans yu nga toog ko kenn gisu la kenn déggu la kenn xamul ci la Abdou Guité nekk dañu bëggoon nga expliquer ñu loolu. oui parce que tout simplement ñoo ngi woon di liggéey ci album bi ñoo ngi woon ci yeneen euh, activité tamit waaye tamit euh, ñoo ngi woon ci album bi tey bi yàlla defee mu sotti ñëw nañu am enthousiasme bu mag pour présenter que public bi euh, peuple sénégalais jiitu ci kon je pense que euh, question bi répondre na bopam ndax bañu lelo lëloo ba tey ñoo ngi ci won bayiwunu ben yoon. on va venir sur le nom de njukal njukal dañu bëgg nga définir ni njukkal kan ngay delloo njukal wa njukal je pense que bo déglo morceau bi di nga xam bu baax ñi may delloo njukal depuis ma commencé suma carrière ba tey wax deug yalla Euh, daje nag ñu bari euh, am na ñi nga xam ni ba nu jàppe ba tey bàyyiwunu ñooñu nag laa boole ci morso njukkal boobu di leen ci delloo njukkal waaye nag benn kii la rek benn page la ci livre bi ci livre njukkal bi nga xam ni moom moo war a moom moo ubbeeku donc je pense que yeneen i njukkal ci kanam ndaxte album xat na te lépp xajul ci biir waaye dañuy fexe rek la cay nekk jëriñ nopp ba koy dégg. mais on a vu que ni da nga def benn spécialité da nga def benn loo xamante ni peut-être xaaruñu ko woon muy son bi da nga koy gis ñu am ñoo xam ne clé USB lañ ko taamoo ñi bëgg ko ci CD ma gis ne affaire bi c'est un peu grandiose. Mhm. c'est un peu naturel te gars yi apprécier nañ ko bu baax parce que clé dafa yomb. Mhm. da nga koy branché déglu sa son. effectivement naka loolu naka la ñëwee sa xel nga def ko mu nekk loo xamante ni dafa am importance. Mhm. waaw dëgg la xel ak xalaat rek xam nga nit moom li ñu il faut reculer pour mieux sauter boo reculer diagnostiquer tey suñu jamono fi mu tollu, je pense que kon da ngay un euh, euh, système bi ça vient à son heure ñu trouver solution bu ni mel pour yombalal ko ñi nga xam un dégg ba nu mën jot ci message bi comme ni ñu ko donc lolu.

Euh, sañu ma trahir loolu benn yoon moo tax album bi bi ñu toogee euh, toog xalaat ko xalaataat ko xale yi tamit ñëw jël ci seen wàll te ko ko déglu di nga dégg. mais dis-moi Abdou Guité gisuñu ko grand théâtre Abdou Guité gisuñu ko ci parfois da ngay gis artiste da nga koy gëj a gis gis ko kenn ko am spectacle bu ñëw sa diggante artiste artistes yi qu'est-ce qui se passe. on ne comprend pas. macha allah c'est une famille pour man je n'ai pas de problème avec personne ak benn artiste. ku ci nek tay señ na fëgg sa kër reere fa wala ma añe fa mais nak gëjë a day am hmm. té yalla def na ni bobu ba tey tooguma won Sénégal rek ma ngi won ci bitim réew ci sumay activité di dem ak di dik mais wax dëgg yalla li nga ci euh, xalat amu ci euh, on va parler un peu de tes projets lan nga nar lan lan lan nga naral sénégalais parce que nañ la lan nga ñuy wajal am série de spectacle actuellement franchement euh, scène bi lañu soxla mu nous te yaakaar nañ ci kon incha rabbi essayer présenter spectacle yu mucc ayib loolu incha allah bu koor gi rek moment de répétition Nous réviser tout le répertoire boole ci album bi bu rek ñu daal di commencé dóor na mu waree. mais album bi nii lan lan lan lan lan lan la ci sénégalais yi wala xaar avant avant koor gi. exactement parce que ça fait. lim ci xaar avant koor gi mooy ku ci nekk am ko déglu ko xam ni ñi liggéey nañu. nekkul woon ci trois ans yi ñu toog liggéey nañu dëgg. te am na lu jóge ci xol te gëm naa ni xol dana ko dégg xol dana ko jot et je pense que tamit am nañu conférence de presse le mercredi 10 à 15h au Just For You. Ça sera l'occasion de parler vraiment des projets, de parler du contenu de cet album et tout le temps, moment bi nous restait ak lip lépp li nga xam ni rek wër ak mbootaay mi may liggéeyal allahu mercredi euh, au Just For You à 15h ça sera l'occasion d'en parler. d'en parler de l'album. toujours de ñëwaat ci album bi parce que euh, suñu suñu xoolee Bamba Touba bi. parce que gars yi bëgg nañ ko morceau bi niñ ko defee remix bi commencement bi doo comprendre mais boo demee ba ci fin bi harmonie bi bi bi bi bi am bay Faal yi xam ñëpp fecc mi ambiance bi. exactement. loolu loolu loolu naka créativité boobu naka la. waaw loolu rek gis nga genre euh, créativité bi ak euh, qualité sonore ak textuelle li la koy may mooy léeg-léeg da ngay wéer lépp dem jublu ci. ay moment de mécanisme la man groupe évolution bi nga xamni mom di le meilleur son la meilleure mélodie lan texte lañ ko a une nouvelle création dañu un remix mais si dégloo morceau bi dëgg di nga xamni duma ni sax nouvelle création parce que morceau bi de multiples facettes mhm. waye nak mélomane bi mooy mooy jéem a def la différence en tout cas li ma mën a wax ci gàttal mooy liggéey nañu liggéey nañu dëgg def nañ ci sunu jom ak sunu fulla sunu fayda te yéene nañ leen ko. Abdou Guité ak ay fansam Guité club rapprochement bi gis nañ ko gis nañ ne dafa am benn courant buy jàll loolu comprendre ma ci yow la wala ci fans yi parce que rapprochement bi macha allah macha allah yéen a ngi ci te te te xam naa ne namoon nañ la. comprendre ñu nga euh, nga toog trois ans gisuñu la dégguñu la mais batay ñom ñu ngi ci. Mhm. batay ñom ñu ngi bëggee waa Guité Club. sante yalla parce que xam nga même bu mbirum musique je pense que ay nit bu ñu nekkee ba seq yenn colère yi ala kulialin faaw ñu demlante te sa lu ñu xewle tamit faaw ñu euh, demlante ci. loolu moo dal ak euh, Guité Club tu veux dire que c'est une famille. exactement donc c'est une histoire de famille c'est une euh, famille qui est née euh, Nous borom nak mo xam ñi ma booleel lu tax mu boole ma ñom mais wax deug yalla maa ka ci sante te ci ma ko benn yoon. l'émission té à sa fin ñu amone entretien content. ci trop tan ngay wax waa jere jeuf di len remercier euh, di encourager sen liguey bu baax a baax parce que je pense que Dakar ku ko xamul tamit dégg nga ko sen liguey rafet na maa ngi ci encourager bu baax a baax di on a besoin de vous aussi parce que bu nous pendant trois ans nous avons une qualité de sens ba mu am yépp ko mëna a kon bayina lépp Dakar Actu médias yi ci Sénégal m'a ngi leen di du fond du cœur te di encourager le meilleur reste à venir voilà nos chers internautes ni ngi l'émission à sa fin ñu amone entretien Abdou Guité di wax album di wax ci lépp di leen wan facette pour benen artiste inshallah merci beaucoup que I know why.